Eh, bokki jullit yi gannaaw a nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydina muhammad moo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp di dellu di ndokkeel jullit yi ci weer wu tedd wi nga xam ne moom lañu ñu bàyyi ko ci ayu bis bii yàlla na ko yàlla nangu te laqal ñu ko fu yàq yëggut li aju ci waxtaan wi tey ci weer woowu lay jëmaat mu dëppoo nag ak xew-xew boo xam ne xew-xew jamono la bu ay bis bi yépp doon waxtaane bokk yi ni ñuy xàmmee ab jullit ak moroomam am na texte yax mbind bu koy wane waaye am na ay jikko ak i melokaan it yooyu kum nekk ci moom mënees na koo tuddee ab jullit yooyu daje nag nekk ci mbind ak ci jëf ak wax ju ñuy xàmmee nit akub jullit jullit ak leneen loolu la jullit yi rawee ñi ci des mooy ban ak ban gëm yàlla gu wér goo xam ne wéet ak wéttiliku la ci nit ki yamale loolu moom la soxlaal digganteem ak boroomam waaye li muy feeñee digganteem ak nit ñi bañ xam ne gëm yàlla gi na ci moom mi ngi feeñ digganteem ak jaami yàlla yi mooy saa bu laabire doomu aadama yi jotee mu laabire leen waaye saa bu jëflante bu rafet jotee bu tegu ci lu jullit war a def ñu xàmmee ko ca waaye it ku dem ba war a wàcc yoon it mu jàppaat ci sa loxo indiwaat la ci yoon waaye taxaw temm it ci lépp loo xam ne bu agsee ci jullit yi daf leen di indil ngaañ loola it bu ko yëgee mu wét ca ak mu wétliku ca moom lay yamale lay doon yitteem mooy loola bañ a agsi ci jullit yi waaye it lépp loo xam ne njariñ la lu nekk fi barab lu mu sori sori te jullit yi soxla ko mu taxaw temm ci ni ci jullit yi jote yooyu ak yu bari yuñ limut bokk na ci màndargay xeetu seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wax ne yéene féete kaw xeet yépp ndax da ngeen di gëm yàlla ba noppi ci seen xol seen diggante ak yàlla ba noppi ngeen di xëccal nit ñi njariñ te mooy digal ko lu baax waaye di ko jañal lor te mooy tere ko ab safaan yàlla nañu ko yàlla jàppandal moo tax waroom xam-xam yépp juboo ci ne su fekkoonte ne lislaam juróomi ponkam yi day am beneen buy ñëw di ko juróom benneel digle lu baax lay doon al maaruf ak tere al munkar euh, <clears throat> mu mel ne digle lu baax tere ab safaan moo fi doon indi li ñu tuddi anbiya ak ay mursaloon seen ginnaaw assaalixoon yépp jàll doon ko jàllalante waaye bokk yi digleeg tere ci ki war a digle te war a tere loolu sëriñ bi wax na sëriñ bu mag bi bind na ana màndarga yu muy yor loolu insha allah danañu fi dellusi waaye jëmmi digle ak tere daal nangoo topp ndigal nangoo bàyyi tere ci la ñuy xàmmee jullit dëgg dëgg dëgg ak naafeq dëgg dëgg ndax naafiq yàlla nee na ci alxuraan lu seen ab lim bari bari kenn topp kenn safaan ba sax mooy am kuñ gis mu mu ne ci lu baax dañ ko cay jéem a dugal ko ci ab safaan waaye mu wuteeg jullit dëgg-dëgg nee na jullit dëgg-dëgg moom day am kilifa luñ néew néew dañuy jiital kenn waxuma laal luñ bari bari am na lu mu di indil mooy dañuy nekk daf leen di digal ñuy ne ca lañ war a nekk mu di leen moytuloo ñu bàyyi la ñu wërta nekk di ànd di def yemi leen di digal ñu àndandoo di ko def di bàyyi ya ñuy tara yépp kenn du ko ci gis su ko defee su boobaa ñoom ñëpp ànd nañ dugg ci mbedd mi nga xam ne moo jëm ci topp yoon wi jëm ci yàlla ak yenentaam sallallahu alayhi wa sallam te yàlla nee na su boobaa ñooña yàlla àtte na leen ginnaaw dog nañ yoon wa lam leen àtte ba noppi mooy dana leen dugal ci yërmandeem te loolu lu ko yomb la yàlla ñu ko yàlla nañu ci yàlla boole kon digle ak tere su amee ñuñ natt na ñoom ñoo ko sañ sëriñ bi jàngale ko ci ay téereem rawatina téere boo xam ne bii ñu bari lu waaye jàng di jàng di mbindum sëriñ bi su fekkee day jàng xam-xam dana ko jàng muy aljawharun nafis danañ ci dellu si insha allah waaye euh, ñàkk a digle ñàkk tere am na xeet yoo xam ne moo leen alagoon loolu it lu gudd a gudd la waaye ci gàttal daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day firi waxe suñu boroom ji wax ne kenn ku ne ci yéen na jéem a doon kenn ci xeet xeet bi kenn ku ne na ko jéem a doon li muy jéem doon mooy lan mooy bokk ci ñii fexe ba feesal nattukaay yi ñuy natt ku war a digle ak ku war a tare kenn ku nekk bu fekkee daa jàpp ne moom moo ko war a def ci ñépp lépp mën naa baax ndax fépp ay maasa di dox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko ne kon boo ku amut dooley wax ñépp dégg la nga tere la wala nga digal leen it soo doxee ba dajeeg loo xam ne du noona waay waay boo bu dee lu ñu war a farang la ci sa loxo farang ko mu dañ su fekkee mënoo ko nga reetaat ko ne mi ngi nii ñu ko mën a farang ñëw farang ko muy ñaar ñetteel ba mooy soo ci mënut ci yaar yooyu ba lenn mu naqari la lool te nga bañ bokk ci ña koy fekkee di ko seetaan yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam nee na foofu moom ëpp naa jéem a nekk ndax bu yombee ba yomb ñépp jéem faa dem tere digle dafay daal di jóge nag kenn ku nekk fexee doon bu njëkk bi wala bi ci topp bokk nee na ñett yi nag ku ci mënul benn baye ba mu seetaat boppam ndax lu toll ne aw fepp fepp dugub ci gëm yàlla moom yoru ko yàlla ñu ci yàlla musal digleeg tere nag bokk yi lu mu am am solo bu fekkee ku war a jëfe ndigal amutit du sotti kii dig ñaar lañuy doon moom la alquran wax ne min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn muy faas ak neutre moo tax courant di tàkk moo tax lampi oto yi tàkk moo tax oto sax di dox yaar yu sa tënku yoo xam ne dañuy dox te kenn dajeg sa moroom ku ne di liggéey la muy liggéey fa mu toll kon bu digleeg tere tollee noonu ba waroon na doon ponk juróom-benneel su fekkee lislaam day am beneen am ñu ko war a taxawe bu amut ñu koy jëfe du sotti ñi koy jëfe nag ñoo tax ñuy digle ak a tere li ñuy jëfe lu mu doon mooy ndigal bokk yi euh, weeru kori wi weeru korite bi ñu koy séentu am na ñaari fan yoo xam ne wala benn fan bu ko coow lu bari jiitoo am nañu ko doon séentu bis boo xam ne ci ñenn ñi ñaar fukk ak juróom ñen juróom-ñett la war a doon ci ñoom ñoom waruñu ko dëgguñu séentu ndax balaa si séentu aw weer dañuy am ñaar fukk ak juróom-ñeenti bëccëg eh, wax yu bari ca am juróom ma di ci ma ci dellu waaye li ci gën a am solo mooy ku ca tënkuwoon ci ndigal moom sa jaan wàcc na te it mën ngaa siggi foo dem ndax ñi ko doon séentu te fekk ñenn ñi ñaar fukk ak juróom-ñett lañ amagul am na ci ku àtte ne ñoom ñi am ñaar fukk ak juróom-ñett dañoo war a bàyyi seen ñaar dem fekk ñi am ñaar fukk ak suñ ko gisut nag ñu door a àggale waaye suñ ko gisee nag su boobaa ñoom ñii amoon ñaar fukk ak juróom-ñett ñaar fukk ak juróom-ñaari fan lañ waragul ndax dañoo warale kon bis boo xam ne bokkul ci koor gi. loolu njumte njumte mënu koo féete kaw waaye am nañu wax ne it bisub ñaar fukkeel beeg juróom-ñeent ca ña ko jàppoon na ñoom ñaar fukkeel juróom-ñeent lañu am tey am nañu leen wax ne yéen bis bi ngeen woor woor ko xaram na ndax bisub korite la ana fuñ ko teg mënuñ la indil yaxub alquran mënuñu la indil xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñépp xam waaye dañ naan la dañuy roy waa barab sàngam lu ñu def na la bokk yi waa barab sàngam wëlbatiku nañu ànd ak ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne bis bi nit ñi jàppee woon ñaar fukk ak juróom-ñeent ña ko jàppee woon ñaar juróom-ñeent ñooñu la ñuy àndal si ne ñooñu ñoo nekkoon ci dëgg ci misaal am na ñu wari bisub aljumaa ne tey la bisub korite ku ko woor dangaa def lu xaraam ndax bisub korite bisub tabaski deesu ko woor te ku def lu xaraam yàlla àtte woon na ko ba noppi ñoom laa wax ne mënu indi indiwuñ benn yax bu dut dëkk sàngam ware nañ rek bokk yi dëkk sàngam boobee ñoom ñoo dem ba wan leen nit faw mu tënku ci kilifteef gu wóor ñoom ñoo génne bataaxal wax na ñoom juumoon nañ ci bis ba ñu wari woon mu bisub aljuma waa ndax bis boobee ñu yi lañ gisoon ci guddik alxemes ba sëdd aljuma doontoon weer dal ne kon ñoom ñi fexe ba nit ñu bari dog war nañ leen a kafaaraal fayaale leen kafaara kafaara ku dog ci weeru koor te tey ko li ñuy wax kafaara daal di génne luy jege téeméeri milliards ak fanweer yu teg ci suñu xaalis ñun war koo kafaara waaye ku ñuy kafaaraal waa réew mooma ndax ñooñu lañ bàyyi xel ñooñu lañ wax ne ñoom lañ dogloo wuñ sa ñoo nekkul ci keneen waaye ñu doon xool ñooñu nag ba aju si ñoom lu seen biir léegi gannaaw ñoom ba ñuy kafaara ñañ dogloo woon la ñuy kafaaraal dogloowuñ keneen waa réew ma lañ wax waa réew ma moomee war a fay bisub koor ndax dañoo dog ci kii bi bisub koor te tey ko weeru koor te bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ne ku dog ci bëccëgu weeru koor te tay ko ci lu dul ngàntul sharia su wooroo li des ci kaw suuf wala ak dundam gépp lu tax mu fay ko ginnaaw nag ñañ toppoon ñoo dem ba nangu ne juum nañ ñi leen doon toppandoo it nañu wax ne ñoom itam dañoo juum te jéem aka kafaaral ñañ doon wooral ñañ doon la dogloo woon te wax nag eh, nan la ñuy def ak ñi ñu waxoon ne yéen da bis bi ngeen woor dafa dafa araam faw ñu wax nag anam na ñuy def ak ñoom bokk yi ma dellusiwaat ci ña julli woon bisub aljumaa ca barab sàngam ñoo dem ba yàgg ñu xoolaat ne ñoom dañoo juumoon bis ba ñu waree du bisub korite ci kor gi la bokk kon dañoo dog ci weeru koor ci njuumte ndax dañoo jàppoon ne weer la te du weer ñu ne dañuy kafaaraal koo xam ne ñoo la dogloo woon ca seen waa dëkk génne cent trente milliards war leen koo jox waaw ñi leen doon toppandoo nekk bitim réew ndeketu yow ñooña moom yëguñ ne am nañu ngi warandoo ak ñoom di warandoo ak ñoom bokk yi te ñëw fam nattukaay bi def ko ci nattukaayam ki nga xam ne moo dàqa natt ñëpp yàlla nee na ko lu ma la jàngal doo ko fàtte wax jullit yi ne leen du waxe kanam kooku moo ne woon saa bu ngeen yandoo bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu mën a doon ndax tënk ko ci weer wu mën a doon mooy tax nga xam baraxlu bi moo tax nga ko xam koor gi moo tax nga xam ko rek waaye su fekkee séentu bi ak coono bi du lu dul ñaar fukk ak juróom-ñeent ci baraxlu képp lay doon ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci koor gi bu jàllee jàll na jeex na amuta soxla ci weer kooku mënut a xam weer yi fu mu toll. waaye bu dee ñi nga xam ne dañoo tënk ci gis nañ ko wala gisuñu ko ñooñu seen juumte du gaaw duñ mën a juum sax ndax ñele ña ñuy déglu ñoom ñépp ñu ngi teg seen bët ci ñaar fukk juróom-ñeent yu nekk danañu jóg yabal mbooloo ñu jàkkaarloog sowu bi xool suñ ko gisee ne gis nañ ko suñ gis na gis na ko gisuñu ko léegi sax yaatu na ba fenn fu ci nekk ci réew mi ndax jan réew mu nekk ak seen jant nag bokk yi réew mu nekk ak seen waxtuy julli réew mu nekk ak seenu xaalis réew mu nekk ak na seeni jàkka di jëm jàkka yépp bokkuñu fi ñuy jëm ñun suñu suñu jàkka ca suñuy maam ba léegi penku lay jëm moo tax ñaan jëmal penku waaye am na ñoo xam ne ci julli di xamuñu fiy jëm penku bi ñuy julli xamuñu penku ñoom soowu lañ xam soo demee tey fi mel ne Bagdad ci Irak bu ñuy julli dañuy wan bu ñuy julli suba waxtu bu mën doon dañuy wan gannaaw jant bi mu ngi fenk ñu xaw a màcc tuuti ci seen càmmooñ ñooñu boo naan leen kuy julli penku lay jëm daan leen jaaxaw ndax fañ dëkk la ak fa leen kaaba ga féeti mun a munawwara soo fa demee di julli it dangay ngay bàyyi penk te da ngay bàyyi bu dee julli suba da ngay bàyyi jant bi ci sa càmmooñ jëm ba ci waaye boo demee Yemen booy julli da ngay bàyyi jant bi ci sa ndeyjoor fekk mi ngi fenk nga jëm bëj gànnaar li ko tàmbalee mas Égypte jëm si ci ñun ñun bu ñuy julli suba dañuy jàkkaarloo jant bi muy fenk boo demee fu mel ni Iran sooy julli da ngay wan gànnaaw jant bi tuuti mu féete mu mu ne ci sa catul mbaggum ndeyjoor nga jëm xaw mokk mokk la ma saw mu jëm gànnaar nord-ouest ginnaaw nag nit ñi bokkuñu fu ñuy julli jëm bokkuñu ay waxtu lan mooy worandoo ak wareendoo ba njuumte ba juum ci njuumte la ñuy toll ñooñee doon wax war nañoo génn ci rajoy waxaat te bokk yi ki may wax ne moo dàq natt ñépp moo waxoon ne waxtu tusbaar fii lay tàmbalee yam fii nattu ko ci heure Makka ak Madina de dafa la dëkkoon waaye ci jant bi la ko doon natt fu jant bi fekk nit rek alquran ne fa man shahida minkum shahra fal yasumhu fu mu fekk waay fu mu fekk waay bis yi moom mën nañoo sore jant bi jëkk fenk fii jëkk sooye fii waaye bis bi ñépp koy bokk moom danañ ko tase lu mu néew ne danañ tas ci bis bi waxuma laa weer yi waxuma laa at mi te bokk yi Makka ak Madina àdduna tàmbalewu fa am na réew mu ñuy wax Indonésie li ñu Makka rawee la ñu rawee ci ay waxtu daanaka te foofa mooy réewum jullit mi gën a mag xanaa fan téeméeri million ngi jullit yi dëkk foofu de su ko weccee ak loo xam ne mosu fanweeri million weddi téeméeri million yi gëm fan gëm fanweeri million yi te foofa la jënt bi foofa la weer bi jëkk feeñ buy feeñ fa la jëkk sooy waaye duñu leen tudd ñooña kon léegi am na leen lu ci laxasul ko ak roy ñi wala roy ñaa waaye ki dut juum waxtu wu nekk mooy ki naan lañ ma waxoon def naa ko jëfe na lañ ma digaloon moom ku koy def tey déglu ko war a digle du juum bokk yi euh, machine boobu ñuy xoole weer wi am na fii ci Touba waaye waa Touba sukkandiku wuñ ci da ci xool weer bi bu ñuy séntu ci weer bi bu ñu ko yóbbaale li si jublu mooy ndax weer wi dana mën a feeñ tey wala déet waaye ay gët lañ koy xoolee bisu bis bi ñu ko doon xool machine boobu daa tàmbalee ay ni ay chiffre am ci sero sero sero nangam zéro zéro nag dara nekk gu fa bisu keroog noonu la tàmbalee waaye mufti di yaaru tuunasi moom itam nee na gisoon na ko waaye lam gisoon du weer zuxal biddiw bi ñuy wax zuxal waaye bam mu amut ko waxe amut fu ko waxe moom amutoon fu ko waxee ba ne li ngeen gis li ngeen jàpp weer du weer ba tax ne moom daa jàpp moom daa jàpp xaw na muy def waaye jàpp lay def ndax lu ko gisul weer doo wariñ kon bokk yi julli wutal nañ ko fi ñu koy defee mu jàkka wala jumaa ak fu la fekk ci kaw suuf sart bi du lu dara lu dul soo waree jàpp jàppal soo waree sangu nga sangu te jublu xibla makka sol lu set taxaw ci fu set jeex na foo ko defee baax na aj makka fenn la ñépp ko bokk asaka it par kenn koy def kenn ay liggéey ci alalam ba am ko wala ñaan bokk alal mu génn ci alal ji waaye bokk yi bokkandoo woor waxe la fi toll nii mbooloo mi li ñuy bare bare kan moo ci mën a xàmmee ko war a ko wërtu wax ko kon ñi nga xam ne am nañ kilifa ñoom ba noppi te di ko déglu nañ yam ci déglu seen kilifa te yam ca te xam ne lii seen li li silsila bi kilifa yi jaar ñépp mënuñoo maase juumandoo benn yoon ndax gis nañu weer wi ak gisuñu weer wi bala si koo siiwal dana jaar ci loxo yu bari ñu càmbar ko ndax lan xam li nekk ci dog leen ci gravité woor leen sax moo tane woor sax moo su fekkee bis ba ñu woor du ci koor gi ñu dab ko ak yéene waaye dog leen te fekk ñu ngi ci biir koor gi te tegaw ko fenn lu dul diw sàngam ak barab sàngam def nañ ko te bokk yi li ci gën a xorom mooy diw sa ñooñu yëgul ne am na ñu leen toppandoo looloo yéeme loolu te metti foofu dañu dig nit gum ñàkk fonk boppam te ñàkk nawloo ñi war a naw lool feeñaat na ci sëriñ bi doon nit ku ñuul sëriñ bu mag bi jàngale woon na ci loo xam ne moo ci jiitu ñi ñuy wax naan dañ doon xeexal nit ku ñuul tudd di tudd MSSR rek ay Léopold Sédar Senghor ba mu koy bind ba wa judoogu ñoom sëriñ bu mag bi bi muy bind Masaalikul naan daf ne du sama waxi bopp lu wér la lu jóge ci ay woroomi xam-xam ni la su ma nee xaala diw laa ci jublu su dul soo gisut xaala del xool xultu wala ma tudd turu ka may wax waaye bokk yi fi muy naan xultu maane lam cay teg mooy gën a leer fuuf muy ëpp barke waaye xam-xam loolu la laaj daf caa teg ne téere bi nag mën naa jariñ ku nekk moo xam mi ko soog a dal jaar ci am xam-xam wala ku demoon ba wan na aw lef bañ ne ko wér nga sa àlluwa ñoom ñëpp ñoo ci yem ci jar njariñ liñ ci mën a jariñu suñu añaanut daan ne ko añaan du am lii du am laa rawatina du gis ngëneelul kenn rawatina kum dëkkal ñam muy dégg mën na leen a gëm waaye ñem xas ba jaxasool du leen du leen gëm mukk ndax kañaanay tax te it bu ca yam waaye daf koy yéene fu mu toll ab safaan dal ko ak li muy def yàqu daal da cay teg ne ñaareel ba bu leen ko jàppee it ne waxi nit ku ñuul rek la nit ku ñuul la ma mujj a ñëw daal ne mujj a ñëw gi jëkk ñëw amul solo ndax boo gisee ab taw aw xiin ay ndox danaan wàtt wàtt wàtt wàtt wat nee na ay ndox jiitu na de waaye wat wàtt jooju nit ñi yaakaaruñu ci seen nawet bu sotti ca ndox may mujjee ñëw lañ ko yaakaare ndox yu bari ya cay topp la cay topp lañ gën a yaakaar dellu wax ne it lu réer ñu di ko seet gone man mag mën na ko gis waaye gone mën na ko gis te néew na sax lu ko mag di gis ndax bët mag ay bëtam du neex ñaare dal ne der bu ñuul bi mën naa bañ a tekk gàttum xel mën naa bañ a tekk doyadi ndax xam-xam nit a ko moom te nit ku ñuul nit la day wax di dox di jëf yàlla di ko bindal tuyaaba ak bàkkaar fa laysa yujibu sawaadul jismi safahat alfata wa su alfahmi waaye nit ku ñuul lañ rek ni kawar gi gàtte ni la xam-xam bi gàtte déedéet sëñ bi dàqoon na loola waaye ginnaaw nit ki bu xasee ba weex lu mu wax dëgg la suñu iblaat nee na woon xaaji abdul aziz ad euh, xew-xew bu amoon suñu iblaat yónnee ca moom mu ne kam yónni suñ muut ma mun ñang demal rek danaa dem boori lingeer fan yi danaa fa jaar waxtaan ak sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ daal di ko laaj yëf yi nu mu demee mu ne ko yëf yi daal xaw ma ca nu mu demee waaye li ma la ci wax daal mooy man bañ ñëwee na ma kooku Touba la dëkk daal laa jàppe ne nitu Touba wax dëgg la sëriñ Abdou ne ko waaw sëriñ Abdou yow fexeel ba loo wax rek lu ma wax dëgg lay doon rek mën nga yow fexeel ba da ba ne lu ma wax dëgg lay doon waaye lu ma dégg dëgg lay doon nag yàlla defal ko ko kenn. yàlla ci boppam sax bu ko mënee am itam amagu ko ndax nit ñaa ngi fen bis bu set mu di ko dégg kon der bu ñuul bi ak sori barab sàngam tekkiwut ne foofu la yàlla nekk makka dañ fa daan dàkk yàlla bi yonent bi ñëwagul ak bi mu ñëwee bay bëgg am ñeent fukki at lu ñuy def dañuy dem ca Kaaba ga ko yàlla ya fa nekk te ñoo ko fa tabaxal seen bopp wala ñu daaj ko fa muy ay dénk am ci yoo xam ne max gi da koy lekk am yoo xam ne bu taw ñëwee mu seey teewul ñu fay rey ay nag ak i gëléem di leen jaamu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee yàlla daf na yàlla nee na yàlla yàlla dëgg-dëgg nee na moom moom fépp lillahi almashriq walmaghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah lu tax ñu nangu ne màkk ma nga yàllaa nga màkka ba léegi te yàlla mënut nekk Sénégal te yàlla mi defoon ba waa Màkka di juddu ak dee def ba waa Sénégal di juddoo ko dee ak gudd fan ak gàtt fan ak di am wërsëg ak gàtt wërsëg kon bokk yi nañ dellusiwaat tënkaat suñum nos teg ko ci loxo yu wóor yoo xam ne du toppandoo du farfarloo day seet li yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg ca tànkam te leen ay ci leen ñu dem waaye su fekkee lenn war naa tax ñuy topp koo xam ne léeg-léeg mu gëlëm ngëlëm lu mel ne li am ni fi mu ne nii ne kaay ñu ànd dem toppi diw te diw yëgut ne mi ngi topp ci ginnaawam su euh, dugg fi barab jotee foo xam ne dañ fay xewlu it dañuy tëj buntu ba rek bu ñu duggee bu ñu doxee ba agsi na maa ngi moom a ànd bu génnee du ko xam yàlla nañu ci yàlla musal kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te déggloo ñu alquran alquran moo ñu waxoon ne yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi cheyin farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuuna billahi walyawmi alaxiri dalika xayrun waa ahsanu ta'wila bu ngeen dee topp na ngeen topp koo xam ne mi ngi teg tànkam fa ko yàlla na ko fa teg te dëppale ko na ko fa yónnente ba tege woon mooy ulul amr moo ñi sañ a digle sañ a tere ñoom ñooñu sax li ngeen leen di toppee moomuñu ko dañu ko bokk ak yéen faw na kenn jiitu te it ki jëkk bi ñuy ubbi bunt bi jëkk koo gis moom la ñuy jox lañuy joxe waaye bu ñu ko ne yaag ñëpp a ko bokk mook ñëpp ca tolloole wàll su ngeen demee ba na ŋàjj ci loo xam ne lii xel dong nga fa taxaw walla farfarloo yéen dellu leen ci yàlla neen yonent bi ne na bàyyi ko fa ndax oto jàppee ko oto bu paan oto bu paan ci circulation bi kenn du ko xaar mu réparé dañ koy romb jàll moo tax sëriñ bu mag bi ne woon man talabal wusula lil jalili fal yatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutian la yamil fi zahirin wa batin an sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aar kii topp na topp koo xam ne li muy diglee ko tere lépp ak diglee ko tere li muy am solo lépp na topp koo xam ne ndigalam ak tereem weesu wut yàlla bañ na nangam wala digle na nangam ba noppi nekk ca soo xoolee xool mu di la ko wax ba tax nga topp ci ginnaawam te ba yàgg nekkatu ca yow bàyyi ko fa te dem yoon nekkalu fi kenn yoon wi jëm euh, Touba jóge fu mu mën a jóge euh, ci la président di jaar donte dañ koy xàllal waaye ci la ku yaramam neexul di jaar nekk dem ku bëgg a dem rek la fi nekkal waaye ci la borom alal di jaar waaye ku ñàkk ci lay jaar ci la ab sëriñ di jaar ci la ku dul ab sëriñ di jaar kon bokk yi xew-xew yu nu mel su ñëwatee jàkka daf ca am wàll waaye jullit yi war nañ cee déglu kañ ca war a déglu mu digal leen lam leen war a digal ñu jëfe ko su leen suñ ko jëfee seen jaan wàcc na su demee nag ba ne damaa juumoon ñoom seen jaan wàcc nag moo ca des te wax naa léegi ne silsila bi yëf yi jaar ñaan gis nañ ko wala gisuñu ko njuumte mënu caa am ndax ma tënk foofu fi laa jeexale su dee séntu weer at mépp fii fi Touba saa bu ñaar fukk ak juróom-ñeent jotee weer wu man a doon danañ daje fa ñuy daje ñay daje danañ daje léeg-léeg ñu yor machine boobu léeg dañ duñ ko yor te machine bi jubluwuñ ci gis weer wi ne gis nañ ko waaye de dañuy xool ba xam tey ku ne gis naa ko mën naa nekk am déet rek kepp ndax xam-xam yàlla moo koy joxe te am na xadis bi wax ne ku jëfe xam-xamam saa su nekk yàlla di ko wan lu mu xamutoon léegi régions yi ci Sénégal yépp fu ci nekk tànn gañ tànn ka fay wax ne gis naa ko ñu gëm ko tànn du mucc ayib la ci liñ yaakaar liñ yaakaaragun mooy koo xam ne mën naa am tey bu Tuubaa doon lakk wala murit gépp di lakk wala lislaam di lakk lakk amut fu mu jëm bu lislaam doon lakk amul fenn fu mu jëlee bagaasam fu mu jëlee fu mu fu mu fa bagaasam yóbbu ko fu ci day lakkaale ci biir waaye bu ñu doon rey murid yi itam du ma murid du tañu rey ko moom bu ñu doon rey murid du ma murid du tañu rey ko ndax ak moo itam ñépp ko mën a seere suñ doon rey jullit yi du jullit du tañu rey ko kooka it amul benn intérêt ci tey la ñuy um wala tey la ñuy wari ñooñu ñañ tànn amuñ ci benn intérêt dara nekk lu leen ci dara te it duñ leen jox dara ñooy woote ci seen téléphone yi bopp te it dañ ne leen bu leen woote mukk naan am nañu ko gis da koy teg sa bët yow wala nga ne diw gis na ko tam doon ko ñu xam ndax bokk yi am nañu naan waa waa Guinée gis nañ ko waa Mali gis nañ ko waa Gambie gis nañ ko wala waa Mauritanie bokk yi kooku ñoo ñu koy wax ndax ku ci yoroon fukki million wala ñaar fukki million te soxlaa gu ko su demee Mali dana ko dénk waa Mali rek faw mu am fa kum xam du yam ca xam nga waaye daf koy wóolu dolli ca te xam ne su sànkoo mu mën koo fay soo munta dénk sa xaalis nag ki nga munta dénk sa xaalis noo koy pas-pas koo munta dénk sa xaalis noo koy dénk sa pas-pas am na xadis bu siiw boo xam ne booba kenn ci xulafa u rashidun ñoo fi nekk kooku daa jóge Madina dem biladu Sham Madina ak biladu Sham mooy ay Syrie ki ordon moo gën a jege ak Madina bus waxtu yu néew la kooku dem foofu mu tuddoon biladu Sham am ku fa ku jóge fii ci Madina bàyyi wooraguñ mu dem bilaadu saam dellu siwaat ci biir koor gi ne yéen bis bu ngeen um ñu ne sàngam ñu ne ñoom fayda bi sàngam lañu um ñoom kooka ne ko foofa foofa la fii fii la atte bu gàtt la te bilaadu saam ak madinatu munawwara moo gën a jege fii ak Mali am na fu mu gën a jege fii ak Mali gannaaw bii bu mag boobu nee na ko woon fii madina la foofa bilaadu saam la foofa ak seen weer ñun ak suñu weer bokk yi nuñ doxee ba junni at ak nangamaat ñu war nañu da ngeen di doxaat juróom-benn junniy kilomètre di sukkandiku ci ñoo xam ne yëguñu ne sax yaa ngi sukkandiku ci ñoom looloo ci gën a metteeti looloo ci gën a metti te bokk yi am na ci naar yi ñuy wax ne ni ku ñuul dem na yàgg nañ ko waxante ba ba fi mu toll nii civilisé gu ñu ngi koy waxante ndax yéen amu leen ab yónent amu leen kenn ku baax am na ku leen masa yey na leen yéen ñi am yónent bi gën ci yónent yi xam nga lu ko waral la ñu ne ko dañ cee gën mu ne déedéet da ngeen a gën a feebar ku gën a feebar feebaram gën a metti xamuñu lu ko daal la ñuy woo professeur yu mag yi waaye am na ci ñoo xam ne ay infirmier mën nañ a faj am na ci xam ne ay ASC mën nañ na ñoo xam ne ay bénévole képp mën nañ leen a xam leen dal wala ay croix rouge waaye su fekkee ku ne làcc làccaaral la xamuñu lu ko dal ci la ñuy woowee professeur looloo tax ñu indil leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu faj leen seen jàngoro ji metti ji yaxfirullahu lana wa lakum wa li